tey la séentu bu njëkk mu ànd ak ñi mu bokk sëriñ Baara Mbacke ñëw teew si loolu mooy solal bis bi kër gu nekk ci kër sëñ Baara woo fa kenn ñi nga xam ne yàlla dogal na jàmp ñu ñëm ñëpp ñëw nañu ànd ko moom gunge ko kon ci ndigalu sëriñ Bassirou Mbacke mi nga xam ne moo jiite mbooloo mi ñi ngi sant bu baax a baax daayira mu xaddimatul xidma di ci jiital jëmm ju tedd jii nga xam ne moo nekk ci bopp di Serigne Afi Bousso di taxawaay taxawaay bu rafet ci jumaa ji ànd ko ñi nga xam ne ñoom la bokkal muqaddimatul xidma mu jëmm ju tedd ju baax joo xam ne nii xaw ma am na kër wala amul kër waaye képp ku ko soxla moom ci biir jumaa ji nga koy fekk kon mel na ne yitteem jëpp mooy liggéey bii nga xam ne da koy liggéeyal Serigne Touba kuy ñëw ci nga koy fekk kuy dem ci nga ko ci bàyyi kon nuyoo bi nga xam ne Serigne Bassirou mi ngi koy nuyu daayira Muxaddamatul Xidma mi ngi koy jaare ci jëm ji tedd ji Serigne Afi Bousso di di nuyu mbooloo mi ñëpp di leen sant ci seen taxawaay ak seen pastef ak taxawaay bu rafet bii nga xam ne am nañ aar di ko def at mu jot bu weeru koor ñëwee muy taxawaay boo xam ne benn taxawaay gënu koo am solo ci lislaam benn taxawaay gënu koo am solo ci yoonu murit kon ñoom suñ ci wuutee njabootu Serigne Touba di leen ko defal sëriñ Basiru dana jekk waxtu wu ne bu ñu agsee fii mu ànd ak ay bokkam ñëw sargal leen ndokkee leen ci seen taxawa ak seen liggéey jël addee ji nga xam ne bu fi Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbacke mu nekkoon moom la koy jox waaye day mel ne addee ji da koo jox Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbacke dikk ko joxal Sayxul Xadim teg ko ci lexol Muxaddimatul Xidma ci biir jataa bi ñi nga xam ne ànd nañoo ak sëriñ Basiru Mbacke sëriñ Modou Baara Mbacke moom sëriñ Abdou Xadim Mbacke mi ngi ci sëriñ Abdou sëriñ Abdoul Aziz Mbacke mi ngi fi ñu gën koo xam ci sëriñ Abdourahmane sëriñ maam Cheikh Mbacke mi ngi ci ak yeneen i bokk ak yeneen i taalibe ñu gunge sëriñ Basiru loolu rek mooy jataay bi mooy solo si kon ñu ngi dellu di sant yàlla subhaanahu wa taala moom mi nu mayoon ñu teew fi daaw may ñun ñu teewaat fi ren di ñu teewaat fi diwén ak at yu bare bare ci sëriñ Basiru liggéey bi nga xam ne yàgg na ko def ñu ñaanal ko yàlla sàmm ko aar ko wéral ay cëram ba at mu jot bu ñëwee mu xeeb ko def lu ko ëpp yàlla man na ko yàlla na ko yàlla defal ci barkeb Serigne Touba barkeb Cheikh Mouhamadou Lamine Bara wasalaamualeykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah mbokk yi ñu ngi amaan mbégte ak kontante ñëwaat ci bis bu tedd mag mujj bi nga xam ne moo mujj ci weeru koor ñu ñëw fii ci jumaay tubaa muy jumaa ju mag ji fekk si waa daayira mu xaddamatu xidma bi nga xamee ne ñoom la Serigne Saliou Mbacké radiallahu anhu dénkoon jumaa ji ak xorum bi ak li ko wër lépp waaye sëriñ alxaaji baara yàlla na ko yàlla doon leer ñëwaat feddali ko sëriñ Sidi Maxtaar Mbakke yàlla na ko yàlla doon leer feddali ko ba Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam tey moo fi nekk tey gën a feddali liggéey bi nga xam ne waa daayira mu xaddama xidma ñu ngi koy liggéeyal sëriñ Touba fii ci jumaam ju mag ji ak li ko wër lépp ak ba ci bàqiya waaye yemuñu ci liggéey boobu nag ñu def ci innovation bu bu rëy bu am solo boo xam ne sëriñ Touba loolu rek moo mooy ji jaamu yàlla ak liggéeyal servir doomu aadama yi euh, ñu def ñoom chaque année weeru koor bu jotee ñu fas yéenoo euh, dogal ay junni junni doomu aadama ci biir dëkk bu sell bi di Touba loolu ñu tàmbali ko at yu bare bare bari yoo xam ne yaakaar naa képp ku dëkk tubaa wala nga gis image yi yaa ngi teg sa bët chaque ngoon buñ dogee danañ fi joxe ay xéwal yu yaatu yaatu yaatu yoo xam ne ay jullit ay mbokki taalibe ñoo leen ci jàppale ñu koy def defin woo xam ne defin wu sell mucc ayib muy participer ci social bi participer ci solidarité bi nga xam ne moom la yàlla waxoon ci alxuraan wa ta'aawanu alal birri wa taqwa loolu mu nekk lu am solo loo xam ne seen njiit sëñ Afi Bousso mi nga xam ne moo toog nga xam ne mooy seen mooy mooy njiital daayira Muxaddama Xidma moo nekk ci bopp bi ànd ceeg mboolem mbokki waa Touba yëpp nga xam daayira Muxaddama Xidma léegi léegi ñëpp ci nekk képp koo xam ne yaa ngi dëkk ci dëkk bu sell bi euh, am yéene liggéey sëñ Touba ñoom ubbil nañ seen bunt nga bokk ci ci ndimbal yooyu nga xam ñu koy def wala dog yooyu ñu koy def nag euh, ay mbokk di leen ci jàppale ñoo xam ne ñooñu tamit dañoo gis ne lu baax dañ ko war a njëkkante la suñu borom waxoon ci alxuraan saari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqina yàlla ne gaaw leen ngeen njëkkante dem wuti njëggalu suñu borom subhanahu wa taala njëggal loo xam moo gën a yaatu asamaan ak suuf yàlla daan ne xaay leen ma ñi nga xam ne ñooy njëkkante lu mel noonu yàlla ne alladina yunfiquna fi sarra'i wa darra'i maanaam njëggal loolu nga xam moo gën a yaatu asamaan ak suuf mooy ñi nga xam ne dañuy génn seen alal euh, di ko dépense ci nëbb ak ci lu feeñ ñooñu nag euh, sëñ Bassirou Mbacké Xaadim Awa mi nga xam ne tey bis mujj bi moom la ko euh, waa daayira Muxaddamatul Xidma di ko jagleel aayowoo la teg bëtam mooy sa mooy njëkkante leen ci njëggalu suñu borom suñu borom subhaanahu wa taala njëggal loolu nag suñu borom nee na mooy ñi génn seen alal di ko joxe ñi génn seen alal di ko joxe ci yoon yàlla subhaanahu wa taala te génn jox génn sa jox ko yoon yàlla subhaanahu wa taala am na solo lool waaye rawat na nga def ko ci bërëb boo xam ne am nañ fa yaakaar ju rëy rëy bërëb boo xam ne ka ko sanc muy Cheikh ma Serigne Touba si am ba ma Xaadim Rasul ñaan na fi xam ne waxoon na sunu borom subhanahu wa taala wa kullu man xaddama ne aw maala ilayhi farzuq hudan aw maala mu ne sunu borom subhanahu wa taala képp ko xam ne jéng na da wut si ma di ma liggéeyal sunu borom maa ngi lay ñaan yàlla na ko may alal loolu la suñu ko yàlla na ko may alal ak njub kon suñu bas tamit xaadim aw foofu la teg bëtam ci aaya wa taala wax waaye ci hadis yonent sallallahu dee leen dépense seen seen seen alal di ko génne joxe ci yàlla suma wa taala waaye sëñ Tuubaa soññe boobu mu soññee ne képp ku daw wuti ma wala nga jeng daw wuti ma ngir génn sa alal liggéeyal ma yàlla yàlla na ko may ak njub ak alal ñett yooyu ci la teg gëtëm ba tax na mu ne mbir mi kenn du ko jiitu ay at a ngi nii macha allah tabarakallah yëmut ci wax dëgg yàlla ñun ñoo ko jege te mën nañoo seere ci moom yëmut ci li muy dund rek di ko joxe ci alalu boppam waaye mi ngi xool képp ku mu gis ne eh, taalib bi sëñ Tuubaa wala nga ab jullit nga rek am nga yéene def lu dala la jéem a wommat pour indi la ci bërëb bi nga génne sa ñaq def ci ba ci mën nañu tudd ku mel ne euh, xaritam soppeem sëriñ Abdoulaye Dia euh, bu sunikoo di def Moussa mooy euh, concours alxuraan boobu gis ngeen ren wax dëgg yàlla indi na ay ndimbal yu am solo yoo xam ne mi ngi ko jaara ci xaritam sëñ sëñ Bassirou Mbacké Khady Awa ni ma ko waxee léegi pour mu indi ko ci jumaay sëñ Tuubaa ji nga xam ne lu waaye di mën a indi rek yaakaar naa fii la gën a yàlla fii la gën a yey ndax borom da ko sañ ci ndigalu suñu borom subhanahu wa ñaan fi ñaan ne ñëpp xam nañ nangu ko kon lu waaye di dimbale rek ko joxe pour ñu jox ko jaami yàlla yaakaar nañu barab yi bokk na ci barab ko gën a yàlla ba tax na kon sëñ bas euh, mi ngi sant baax a baax a baax moom day sant xëy na sax waa daayira Médina Xadim ñoom dañuy jàpp ne ñoo koy sant waaye moom moo leen sant ndax ñoo ko ubbil buntu joxe ñoo ko buntu yoon woo xam ne euh, ku ca jaar rek joxe day mel ne jox nga ko directement Sëriñ Tuubaa te ku jox directement Sëriñ Tuubaa jox nga yent sanc jox ko àgg na Yàlla subhaanahu wa taala kon moom jàpp na ne yéen moo leen war a sant moo leen war a gërëm ndax li muy def nii man amila saalihan fali nafsi yi li muy def la koy defal da koy da ko ci misaanu xasanaat yi nga xam ne moom la yonent sens wax ne ëllëg yooma xam ku fees di rek yaa ëpp la ñëpp kon moom jàpp ne moo lay war a sant bu baax a baax baax kon nee na mi ngi ñaan yàlla suma subhaanahu wa taala suñu affaire mi nga xam ne moo nekk ci bopp bi yàlla na ko yàlla waaye ñi nga xam ne rakkam yi mu àndal ak mbokk jullit yi mu àndal yëpp yàlla na ak doomam yi yàlla na yàlla gën a taxaw gën leen dimbale ndax ñoom ay jàmbar la dama xadam xidma damay wax ne waxuma la jumaay Touba kese waaye dëkk Touba bi jàpp nañ ne buñ ko tegoo seen loxo insha allahu rabbi léppay rafetu ndax am nañ yéen am nañ pas-pas bi ndax ñoo xam ne ay njabootu suñ Touba lañ di deretu suñ Touba euh, jàng xam bu wér wér wér nan la war a saytoo jumaay Touba ji jàpp nañ ne dëkk bi sax bu ñu leen ko joxoon bu soob yàlla des na ko defar ba tax na waaye la ko dala ci maam maam maam Mor Diarra ba ci ba ci sëñ Massamba waaye seex yi ñëpp la sëñ Bass kenn ku ne daanaka at ah bokk nga ci délégation te loolu lépp nag li ko li li ko waral du dara lu dul ak ak baaxam ak nooyam ak tabe ak am njariñam ndax it am njariñ lu am solo mbokk yi mbokk yi suñ borom subhanahu wa taala mi wax ci alquran karim sara jaam bi nga xam ne euh, amul njëriñ ba pare ba pare bari jafe-jafe woowu kan loonu ala mawla kooku sax yàlla su da koo jëpp <laughs> kan loonu ala mawla yàlla da koo jëpp kon suñ borom subhanahu daa bëgg nit ku am njëriñ ni euh, ko am njariñ nag euh, da ngay amal njariñ mbokk yi amal njariñ say mbokk amal njariñ ñi ñu ma tuddee doomu aadama yi te loolu sax yonent sansam daana ci soññee daana wax ne euh, ki gën ci yéen mooy ki gën ci njabootu yàlla suma subhaanahu wa taala ji suñu bas noonu la mel bëggul kenn tumuranke yittey doomu aadama yi ci lay xëy ci lay gontu ba tax na loolu bokk na ci li nga xam ne yàlla may na ko ba ñëpp jëflante jëflante ba rafet waaye ñëpp sopp ko moo tax bi mu ñëw waa kër Sëriñ Tuubaa la àndal Bara nga xam ne Ah, ah, fa la fa lañ soqi ko macha allah sëñ Abdou Aziz Ahmed mi ngi nii sëñ Ahmed bu sëñ Baara moo njëkk yëkkati kaddu gi waaye sëñ Modou Baara Abdou Karim ah, sëñ Modou Baara Abdou Abdou Kadim ma nga ne toog macha allah tabarakallah ak ak sëñ Abdou Aziz Baara mi ngi fi toog sëñ Chouaib Mbacke bu sëñ Xaadim Modou Baara benn benn yi daan ñëpp ànd nañ ci délégation bi waaye waa kër sëñ Tuubaa yi boo tuddee waa kër sëñ Abdou Lahad Mbacke gis na sëñ bu sëñ bu sëñ Sidi mi ngi fi toog sëñ Abdou Khoudoss Mbacke bu sëñ Cheikhouna Abdou Lahad fi toog boo tuddee waa Mbusoobe nga xam ne yéen a yor barab waaye suñu njaboot ak ak suñu jarbaat ñoo ànd ak ñun muy euh, sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Abou Bousso Mewle ma nga ànd ak ñun euh, ci jataay bi waaye euh, mbokk yi nga xam ne ñoom la ànd ak ñëpp macha allah tabaraka ñi ngi ànd ak ñun ànd ak ñun jataay bi ànd ak Cheikh Ahmadou sëñ Bassirou ngir gunge ko ci jataay bi waaye ànd ak tamit xaritam soppeem taalibeem di ko xam ne taalibi Cheikh Ahmadou Mountakha la di opérateur économique di Moustapha Sow di ko xam ne dëkk bi xam nañ ko miin nañ ko ci socialam Euh, du Touba kese waaye fu mu nekk ca Kaolack ak fépp mën a nekk ci dëkk bi rek ñëpp mii nañ ko social am nga xam ne day mel ne moom li muy liggéey lépp rek day fas yéene yéen delluwaat ko ci jaamu yàlla subhanahu wa taala loolu nag mu ànd ak sëñ Bass tey ñëw ci délégation bi euh, tombe ko wax dëgg yàlla ànd ci donc kon sëñ Bass nee mi ngi koy sant baax mi ngi koy gërëm bu baax a baax a baax ci jotaay bi nga xam ne ànd nañu ak moom kon daal euh, sëñ sëñ Yaafe duñ guddal sëñ mi ngi leen sant bu baax di ma ko waxee léegi ndax yéen a ko yombalal aw yoon waaw nee na daayira Muxaddamatul Xidma amul seen fay ndax gis ngeen gis ngeen ne li ngeen koy lépp ngir ngir yéene ko yiw la do yéen jàpp ngeen ne lu ngeen gis rek loo xam ne xëy na xaw naa jafe jàkk ji ngeen ana suñu bas loolu nee moom da leen di sant yéen lay sant bu baax a baax a baax ndax ma euh, ku def aw yiw rek euh, maanaam am nga ci aw yiw waaye ku ca jaaraat jariñoo ca yiw woowu day fekk suñu bas fa nekk kon ba tax ne nee na ngi leen sant bu baax waaye di wax ngeen ñaanal tamit tam soppeem sëñ Abdoulaye Dia Seniko nga xam ne moom it euh, genn wàllam la muy taalibi Sëñ Tuubaa nga xam ne xam ngeen bu baax a baax maanaam ndimbal yi xam ne jaara na ci loxo loxoom ñëw ci sëñ bas ma dugg ci biir jumaa ji nee loolu lépp taalibi sëñ Tuubaa la war ko defal sëñ Tuubaa ci jumaa ji kon nee na moom tamit mi ngi leen sant baax di leen gërëm di ñaan yàlla yàlla nañ ko teew at yu bare bare bari yàlla guddal seen fan yokku leen ba li ngeen bëgg liggéey sëñ Tuubaa ci dëkk yàlla may leen ko barke sëñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala gi nga àndal ak euh, bokki taalibe yi ni ko sëriñ maam Cheikh waxee léegi euh, sa jikko moom mel noonu moo tax wax ñëpp la tax moom sëñ Bass ñëpp ñëpp la jaxasoo ci bu nekk nag loolu la ko yàlla bindee man ñii di wax xam naa ci dara ngir nii ñuy demee moom noonu lañ demee euh, kaddu yi nga xam ne nag moom la ñuy yëkkati ubbil sëriñ Afia dañuy def benn témoignage ndax sëriñ bi ñun lay yónni ñu dox diggante moomu ak moom voilà man ak si jablaat ñoom ak ñi nga xam ne ñoo ko gën a nekk ci terrain waaye yitte joo xam ne euh, si Afia mii ak daayira bi am nañ ko te mu doon yitte joo xam ne ni ma la ko waxee woon doon na loo xam ne wax dëgg yàlla taux koy def dafay doon lu bari loo xam ne xajul ci keesu rek moom mii su duggee noppal du am jàmm mukk mukk tey tëjoo ci saafara loola mën nañ cee seere lu mujj bii di caméra yi surveillance yi nga xam ne boobaak léegi liggéey bu am solo yi nga xam ne liggéey na ko ci jumaa ji kenn xamul nu mu toll te mu mu mu wax ceeg xaritam mbokkam sëriñ Ablaye Dia ñu financé te mu doonoon yitte ju kawe kawe ni ko noonu am na biir yu bëri yoo xam ne loo xam ne lu ñu war a dox la lu lu concerné daayira bi su ko yëgee kemtulaay kattanam day fexe loolu saafara loolu sëriñ bi xam nañ ko suñu diggante ak moom ci daayira bu ñëw gii mu ñëw nag euh, dogu yi fi mu ne nii ubbiku na yi ci bëri ñu ngi ñëw waaye moom mi dafa bokk ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ci ñi ci yàgg a ñëw maanaam ren ji mën nañoo wax ne ay yooni yooni yooni ñëwam rawatina euh, ren jii mooy ñaareelu ñëwam di koor gi ñëw na fi indi jëfi sëñ Ablaye tey jii mu ñëw ànd ak ay bokkam indi jëfi bokk am yëpp noonu la koy def kon daal loolu kàddu la yoo xam ne kaddu yi bégte la yoo xam ne mënuñ koo ñàkk seere ci moom kaddu yi nga xam ne nag mooy kaddu yi cant yi ak ñaan yi sëñ mi nga xam ne moo mooy njiitul daayira bi kilifa liggéey dañ koy bàyyee mu tënk yi nga xam ne mooy kaddu cant yi ak ñaan yi euh, jëmale ko ci yow jëmale ko ci bokk yi nga xam ne ñoom nga ànd bu baax lépp loo yéene yàlla nga ko sa loxo nii ko maam si maam Cheikh waxee léegi lii day bis boo xam ne xëy na da ànd ak ñëpp teewee ko waaye li nga seq ak daayira bi te ni ñëguñ ci moo ëpp doole lii fukk waaw lii da ci lenn rek mën nañu wax ne lii moo ci gën a woyof ndax daayira bi ku bari itti la te néew ay moyen waaye lépp lu dugg sa nopp ni ko Abdoulaye waxee ak lu mu mën di doon xam nañu bu dugg sa nopp rek kawar faju na ndax doo amatul jënt yu faj kon nag loolu ñu sant bu baax te di gën a ñaanal li ma a wax léegi ñaan lañ la mënal ñu ngi la koy defal mm-hmm. ñaan ngi daal ne foo bëgg a yàlla na su borom àggale ndax yëmoo ci sa doole bopp sa doole bopp boo defoon doy na waaye da nga cee boole xam xaj bi ku mel ni sa mbokk Sëñ Abdoulaye ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne yéen nga leen jàmm yéen nga leen toofe ba tax li nga nekk yoon nga def nga leen ci xëcc ngay ñaan li sax ci mbakke ba sob la li nga bëgg liggéey si moom lépp ko ni ko bëggee ñu lay sant di la gërëm di la ñaanal waaleykum salaam wa rahmatullah midadi wa aqlami liman sahal yamma kama sahal shaytan wal jala wal khamma